toogagul moy mu ngi ni mu ngi laajaat askan bi bat pour mu meun leena wal fim fi ni toll nii Pastef daño ñew di ñu laajaat baat pour meun ñoo walu ñun legi ña ñu tegon coono yi ñew ne non non <laughs> ñoom ñoo ñuy wàllu <laughs> léegi ku ngeen ni gem legi wax leen ma kan ngeen ni gem kan ngeen ni gem comme yeen ñun dañoo focus te yéen focusoo leen. comme yéen moom ñun dañoo focus comme yéen ñun dañoo focus nekk ci suñu bopp te yéen da ngeen amul lu ngeen def si suñu live yi ngeen di wër xaaral ma dimbali leen comme ay dof ngeen donc kon pertinence élection yi lii kese la pertinance élection yi lii kese la mooy ñii dañoo yàq Sénégal ne kenn du ko fi defaree li kessel la mooy yak senegal Sénégal ne kenn du ko fi defaree je vais déposer dès demain dès demain <laughs> mais kooku kooku mooy kenn du fi defari Sénégal dès demain motion de censure dès demain légui nag. léegi nag léegi nag taxawaay bi ñu war a am buñ ci buñ ci buñ ci buñ ci seet ma sàmba walla ma demba mooy nanu am fulla ak fayda gu mat sëkk fayda bu mat sëkk ba jox majorité absolue parce que tey man munuma man injustice bi ma bi ma dund munuma taxaw ne man dama bëgg ñu fajal ma ko ba pare élection yi may toog bañ a voté ji waxuma la sax votel keneen moom mais ma koy ñàkkal fay fayda quoi man gis nga ma ni benn patriote dina dina dina votel dina def loolu votel feneen wala patriote bu dof amut mais négligence laay bañ maanaam soofantal no grawul élection député le xam nga grawul ñun dal xex nañ ba gaay dugg ci palais bi légui ñoo ci des nañ doxal ñun suñu jaan wacc na déedéet sa jaan musul wacc sa jaan yéegul sax bay wacc parce que néna la élection présidentielle yi importance bi mu am mom mo jox dayo li parce que da nga xex ba ba jëlé fi Macky Sall legi Macky Sall dafa ñëwaat dafa bëgg ressusciter wu kon mo lay won ni dé déwul wala bu déwé it manam liñ nan mu ngi dans le coma parce que li lay won yow sa combat jéxagul moy Macky Sall mo ñëwaat jité liste kon kep ku yakarni yow sa jaan wàcc na sa jaan wàccul parce que kanga du fi jele mom mo ñewat ak gangoram ñom nak dañoo lo nak manam ay mala sax bu ñu tiitee dañuy dajaloo maanaam da seen dajaloo moom bu mu leen jaaxal tey boo dàq jee ay mala ba ñu tiit wala ñu benn dë dënnu am dënnu bu ngënd am nii da ngay gis dañuy dajaloo si benn coin ñoom ñëpp bu dee ay nag la dañuy dajaloo si benn coin bu dee ay xar dañuy dajaloo si benn coin loolu moo dal opposition bi kenn ñemewu ci dëggal boppam génn moom kese léegi nag luy naaw a neex a sànni dajaloo googu ñu dajaloo nag moom bu ñu leen dumaa gas leen suul leen foofu lay jeexe léegi nag kon ka nga duma woon dafa ne woon damaa yónnee beneen ma waxaat leen tamit beneen thèse bu gën a gaaw Macky dañ dafa yónni woon Amadou ñu duma Amadou léegi moom daa ñëw moom dafa ñëwal boppam Amadou ne ne mu ne nii léegi dañuy boole duma léegi nag kon. pertinence bi nga xam ni élection yi am na ko ak dayo bi mu am dañ ko ko war a jox ba mu mat sëkk muy lan muy voter le maximum possible voter le max teg sunu bépp xalaatin maanaam parce que saaga moom mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam bu ñu nee ñun ay dof lañ ba ci six mois ñun li ñu xeexoon li ñu daj li ñu dund yëpp ñun ci mois Sonko def nañu fi loo xam ne war nañ koo mën a bax loolu lañu loolu lañu wax de ci six mois jomaay def na fi loo xam ne ñun war nañ leen mën a bàyyi de gedd découragé newaat système bi ñëwaat leen parce que ñii moom jaruñu ko ñoom loolu lool loolu lay tekki quoi léegi ñun nag nañu am fayda ndax juddu bu rëy ndey ak bàyyi fulla ak fayda borom affaire bi du xam-xam du jàng gu rëy du du du du du dara du simple à expliquer la mooy ñun yàq nañu Sénégal kenn du ko fi defaree te nag kenn du ko fi defaree bi ñun munuñu ko askan wi la ñuy may mu may ñu doole ñu dem fa ñuy defaree Sénégal léegi ne léegi kenn du ko fi defaree dañ ko wax ouvertement mu leer te dañ koo jëf ndax bi ñu amee majorité gis nga dëkk bi dafa ne kàkk lu jomaay laal ñu ne ko du foofu ba ne je vais déposer dès demain ku fàttaliku kuy fàttaliku rek da ngay kuy voté rek ku tëdd sa kër rek fàttalikul dès demain bi kon bu aju woon ci ñoom rek fi mu toll nii gouvernement Ousmane Sonko bi daaneel nañ ko ñu ngi nekkaat ci li jënti nan la ñuy taxawalaatee beneen gouvernement perte temps boobu léegi nag ñoom moom lañ ñu yéene cinq ans yi yëpp moom la ñu yéene de te ils l'ont dit clairement léegi nag ab ministre mënoo ko topp te amoo ko haute cour de justice parce que suñu juridiction yi suñu tribunaux yi mënuñu leen àtte te ñaata ministre ñaata ministre yow ñoo la def lu la naqari ci sa alal waaye ñoo rey say doom ngay teg sa bët pour nga mën ko àtte pour nga mën ko topp il faut am haute cour de justice te assemblée nationale moo koy voté te Sonko wax na ak yow ci liste yi am na benn procureur bu dugal ci liste bindal leen ma turam Sonko mu ngi wax ak ñun de ku sell ki wax na ak ñun de nee nañu ci yéen la des yéen a doon wax dañoo yéex dañoo yéex. Antoine Diome rey sunu doom yi Macky sàll dañ ko war a indi Sonko nee na la doom yaay nga ne ko naam mu ne la ci yow la des. gis ngeen liste ba c'est le Sénégal en miniature yow handicapé bi Sonko nee na la sa dund pour sa condition de vie pour mu changer ci yow la des. parce que tànn na ay maanaam li mu leen rawee maanaam liñ naan kuy nit ki lu muy gënee nit buy sangu du ko simmi. maanaam sunk li mu rawee classe politique bi heure bu ñu xëyee ñu ngi ciy teg seen bët maanaam lim lim leen gënee wayuma ko de wallaahi wayuma ko man xaw ma maamu kenn du ma géwalu kenn ba di ko way mais wallaahi Sonko billaahi wallaahi wa tallaahi bénédiction la pour Sénégal billaahi wallaahi tallaahi man du ma way kenn xawma ko sax ba di ko way billaahi xaw ma ko maanaam xaw may maamam laa bëgg a wax quoi mais dëgg lay wax yow indi handicapé visuel bi Sonko bàyyi maanaam maanaam moo tax mu gisee ku nekk si naan man damaa xeex booy Sonko ñëpp la bàyyi xel booy man damaa exilé nekk Guinée Bissau dégg Sonko di tudd sama tur mooy biñ ko biñ ko barricadé muy entraînement noonu te man mosuma xalaat ni sax Sonko mu may lijjanti mosuma bàyyi xel loolu surtout maa ne yéen ñi bokk Pastef yéen nga xam ne au moins mos na toog ak yéen yéen nga xam ne yéen a ngi dëkk Touba nga xam ni daanaka xam na leen yéen ñëpp xam na li ngeen daj coono yi ngeen daj. mais xalangu moo dajul suuf kon ku bokkul ci liste yi bul wori foo mën a nekk nga mës a liggéeyal Pastef Sonko baa ngi lay bàyyi xel mais daanu moo dajul suuf surtout maa yéen ñi nga xam ne au moins mës ngeen man mosuma gis Sonko mosuma toog ak moom mosuma koo nuyu maanaam comme gisante toog nii benn yoon laa ko mës a gis ñaari yoon Parcelles Assainies ak Kër Massar te mitin la mais sakamtuma yéen ñi nga xamné ay partisans Ousmane Sonko ngeen da ngeen di toog ak mom di dem kërëm mu xam leen amna na buñ ko nuyo day jaar seen tour man dama tok Guinée Bissau Sonko tudd sama tour di may mbel di may mbalak di may bégge naan mom mo mën buñu bëré daf may daan ñëpp di ma téléphone naan mu boy Sonko tudd na la Sonko man ta mang ci exil bi mais lolu moy reconnaissance kon nañu xamné amul kenn ci ñun ci effort yi nga xam daj nañ ko ci projet bi donte defaluñ ko ko waye amul kenn ci ñun ko xamantene amul reconnaissance envers toi mais daanu mo dajul olof neena na xalangu dajul suuf 165 député la ñi bëgg Ousmane Sonko yeb ak ñi xex ñi sonn ci projet bi yeb aduna la mais xolal mu ngi bayyi xel ñu ñu gëna ñu ñu gëna a ci askan wi nañu waxante dëgg ñun suñuy infrastructure sax wuñ ci xel les handicapés ba Sénégal dee Sénégal ba tey est-ce que mës na ñëw nit politicien mës na pourtant am nañ ay handicapés yu nekk ay politiciens ay handicapés yuy milité ci ay parti est-ce que mës nañu bàyyi xel Sénégal ñu investir handicapé visuel wala handicapé moteur ci ci liste pour mu mun a dem doon député la l'Assemblée nationale est-ce que mës na am est-ce que damay laaj est-ce que mus na am est manam exception yi Sonko di def te ken musuko gis wala buñ ko gisé it lu raar la mais lolu la len rawé kon du ay wax ngeen koy dabé wallahi du ay wax ngeen koy dabé du ay wax ju ñaaw mais nak ku lay dàq jotu la lu mu for la ku lay la lu mu la mais chaque fait chaque acte bu mu def rek da koy différencier ak ñeneen politiciens maanaam gars yi ñoo dul bàyyi xel rek mais Sonko act bu mu mënti poser rek maanaam dafay dafay tàqaliko ak gars yi chaque instant dafay poser acte yoo xam ne daf lii dafay wane ni du ñoom te duñu moom te àdduna du yàgg ba ñu doon moom te li tax askan wi topp ko it heure bu poser acte dafay joxaat dëgg askan bi maanaam daf ñuy daf ñuy may ndam ñun nga xam ne dañ ko topp di ko gëm ñu ñuy xas naan ñu da ngeen nangam ak nangam manam heure bu posé acte rek dafa ñuy rat fier ñi nga xam nak nag Sénégal rek mo leen ñor top ñu ko ngir dara dañ ko top ngir bëgg gi Sénégal parce que tay bi liste bi génné kan mo xaaroon fi Sonko génn kan mo fa xaaroon à 100% mëna wat ni man xamoon na ni Sonko li lay def non non non non ah man de xaaruma ko won te pourtant il l'a fait damal xol yeneen list yi ndax Liko ko doxale doxale nañ ko noonu legi ki lim la rawee yang koy gis nit ki lim lay rawee xol bu mu koy def yaangi teud di nelaw kon je pense que ñun fayda gogu lañu wara am fulla gogu lañu wara am taxaway bobu lañu wara am ba ngir yalla ak yonenti bi gaay réussir gars yi réussir mission bi parce que am na yenn quantité député yoo xam ne bu ñu ko amee sax parce que bu ñu amee quatre-vingt-dix député rek mën nañu mën nañu mën nañu mais mais défaite la gars yi dañu war a ravager maanaam foo tollu dégg duma yi foo tollu dégg duma yi parce que xoolal tey élégance bi ñu bi ñu àndal Pastef élégance bi mu àndal Barthélémy Dias mais moom xam na ni warul bokk. mais quelle élégance bi ñuy àndal gis dem déposer recours au contraire nous ñoo déposer recours ci passif. Madame, différence bi dafa madame, différence madame, vous, madame, Madame, ñun madame, différence bi dafa bëri Madame, lépp te keeru ñu leaders ils sont sûrs dañoo gëm seen bob. doon ay xam nga lu naan ay doon care ñoom ay doon care boobu la ñuy dund parce que xam nañu li leen maanaam nit ki mën nga am dara ba pare nga umpale ko mais ñoom li ñu am dañ ko xam téye ko xam li ñu am quand nga leen di déglu ñuy wax dañu xam ne ñoom xam nañ fi askan bi toll maanaam fi ñu fi ñu nekk xam nañ ko te loolu moo gën a am solo nga am njiit bu nga xam ne moom xam na li ko war xam na fi mu nekk xam na fi mu ni ngeen ko teewee mënoon nañ def recours ci moom du laal suuf bu doon ñoom la mais fii dafay Ousmane Sonko jotewul ak Mame Mbaye Niang agent judiciaire de l'État def recours procureur def appel fii la fekk c'est récent mais wuñ ko sax na dem déposé moom ak procureur pourtant nag article yu leer nañ ci suñu constitution dafa wax ni képp ku ñu condamné muy député perte nga sa mandat loolu dafa leer moom Barth sax waxal na ko boppam mais ñoom ñoo wëlbatiku di moo tax man la mënuñu politique. di def recours ci Ousmane Sonko loolu ku meun politique du ko def ku élégant du ko def mais nak man ma bax sax man mi xaar élégance ci ñom man duma waruma xaar élégance ci ñom légui nak comme ñun fi may daanelee 80% comme ñun. donc kon man fi la nek, te bëgg naa ñun ñëpp rek ñu nek fofu. Moy fexé de telle sorte que voter et faire voter comme ni ko jëlé won au sérieux jëlé ko doole ci élection présidentielle yi passé parce que damay défar Sénégal ñu ne la do fi défaré Sénégal Wa Sénégal nak ñoo wara taxaw né ah ñun ki bëgg défar Sénégal koko lañu andal. c'est simple c'est limpide c'est clair comme l'eau de roche kon c'est pas la peine de chercher de midi à 14 heures bàyyi nañ leen ñu doxal parce que mars la nous fallu, ba presque juillet la nous doog assemblée comme euh, je pense que euh, juin euh, ou est-ce que août bi ça, mois passé devant la ko tas kon may nañ temps pour xool ndax de dinañu nous ak ñun ñu doxal Sénégal comme programme parce que parce que nous ñun lañ défier nous le peuple sénégalais ils ne sont pas intelligents parce que ba Sénégal des Sénégal ba président sortant bi da je ko député mi accompagner le président bi parce que askan wi ñoo naw projet passif. ne ñun projet passif la bëgg mu jité réew mu doxal réew wa choix sénégalais yow yow défier projet bobu manam défier ñi nga askan mi même pas six mois nga ni doxal mais ils ne sont pas intelligents ils ont défié le peuple sénégalais peuple bi ñoo fal jomay la majorité ñoo fal jomay comme ay mbam sëf la mais nak mo tax maa ngi masawu waale suma doomu nday suma frère Khadim Gadiaga mum ma ñu ngi jokkoo mu may mu may wax trahison biko Amadou Ba trahir mo nek parcel <laughs> xam nga maa ngi koy wu metti na trop mais nga gis ay jambal Diagne ci liste ba ay ñom xam nga lu ñu nek fofu xamoo ko pour pour mbalaanu kiiraay kun maanaam gars yi affaire bi dafa leer lekk nañ suñu xaalis rey nañ suñuy doom fenal nañ suñuy kilifa def nañ lu leen neex parce que mais dañu bëgg a ñëwaat ñun askan ñu sàng leen seen affaire bi moo yomb dafa yu maanaam élection yi amul équation ni ni élection présidentielle yi leeree woon mu am mu leer bii moo ko gën a leer bii bipolarisation la bu leer nañ mooy le système et ñu amul ko fi taxaw borom nenu baxal yi nag boo fi déggee Ousmane Sonko teggee Ousmane Sonko ci anti système koo fi tegaat man la ne élection yii di ñëw Ousmane Sonko bu amul candidat wal fajir la toog damay bañ may buna busa dóor ma mais borom nenu baxal yi ne man Ousmane Sonko amee candidat damay dem jàppale ko mais mais mais ay ay ay ay ay ay ay yàgg a baax mais tey bu ñu demee ak Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy mais mais mais mais soo mënee toog nga xalaat ñoom bu ñu mënee nekk booloo mais loolu chance boobu Sénégal moo ko am mooy ñu doon ñu wane ni dëgg-dëgg ay mbaam lañ mooy ñi nga xam ne système bi lañ mos a doon wane nañ ko. muy waa PDS waa kii mais ak ñi nga xam ne dañ doon anti système anti système la ñu doon wax tamit ñu nouvelle génération bi dañu ñëw kii naan kii dafa euh, la a trahir euh, trahir l'histoire il a insulté dis ñoom ñooñu ñoo doon nga xam ne ñoo doon ànd ak Sonko barki Dembo Ndiaye di wane ni ñoom Macky Sall la ñuy xeex ñoo ñoo def intercoalition ne ñoom six mois après Macky Sall baax na mën nañ ànd ak moom. léegi nag li nga am noonu ñoom ñu dajalool seen bopp nekk benn muy leer ñu doon wane ne ñi ñi ñëpp xam ne ñoom ci système lañ bokk ak ñi doon wane ni ñoom anti système lañ dañu maanaam dañu bëgg indi lu bees dañu bëgg wane lu bees parce que ay ndaw lañ dañu bëgg indi politique bu bees yore yorinu Sénégal bu bees ñoom ñoo dem a lëkkaloo ak ñi nga xam ne parti socialiste bu njëkk ba ak PDS ak yëpp ñu rëkkaloo nekk benn moo lay wan ni kon anti système bi leer te wóor wax ko te jëfe ko mooy passif. ak allié yi nango and ak ñoom dafa leer c'est pas la peine de chercher de midi à 14h xamna ni dama baax di wax sax mais limay wax ni ko xam kon nak ku am ñaari junni yo maye may ko ko la neex waye so bëggee dégg-dégg jappal c'est la bon TV duñu saga kenn duñu wax kenn lu ñaaw duñu xass kenn fi lañuy waxé ak xel ti wax ay fée ñëpp di dégg waaw bu la neexee nak nga baña nangou waaye li ñuy wax nii ay fee la ay analyse yu simple la yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ciy teg suñu bët yàllaa ñu nattoo bari wax mën a wax di ko wax dong di ko fàttali ndax alxuraan moom chaque jour nga gis gars yi toog di waaraate yàlla neen li baaxul ñu ñu bëri la majorité xam nañ ni yàlla la julli danga dafa baax mais dañ koy fàttali ñu nit xam nañ ni patriote yi xam nañ li ñu leen war xam nañ li ñu bëgg xam nañ li leen koy may te xam nañu fi leen fi élection yi toll mais dafa baax rek ñuy def ñuy waxtaan ak ñun suñu biir di gëna fatali konté di gëna a bàyyiloo xel enjeu yi lii rek la mais ñun xam nañu sax yeena ñu gëna xam ah, man man bok lima japp yeen ñi may deglu yeena ma gëna xam sax li xew waaw ah, mais nag comme dafa baax ñuy laayante biir di gëna degeural tek suñu ngëm waaw ah, rek mom mom motax may wax ngeen balal ma su fekke amna na lu ko am ñaari jun yo may mayal kula neex jaa jëf